thank you doon célébré ci Touba samedi 1er février ci atum 2020 naka noonee mobilisation bu am solo lan fa nemmeeku woon waaye nag teewoon na fa ndaw li di Moustapha Seck di yëngu ci benn bokk yaakaar fare ci gox bii di Janatu Mahwa bi mu ñëwee nag ànd ak naag équipe bi liggéey pendant heures waaye nag bi mu jëlee kàddu sant na initiative bi gëna a tamit encourager le ministre ak it bu président Macky Sall buñ ci doole waatee samedi yi lii nii lu rafet la ñi ngi wax au nom du ministre Karim na bi nga xam ni moo ñu fi yabal euh, mi ngi rafetlu bu baax a baax a baax a baax jii nii dafa am programme Kaolack démb à une heure du matin il m'a appelé wax ni ma naa ko ñëwal fii nii santal ko ñi fi daje ñëpp bu fekkoon ni du programme colloque bi fii lay jaar. naka noonu jàpp na ni ministre bi bàyyi na xel loolu gox bi di Touba ba ñi nga xamante ni ñoo ko doon laajte bëgg mu teew moom kat mi ngi biral ni ni muy demee si yeneen gox yi dina fi ñëwee fii si Touba ngir ànd ak ñoom journée lëmb si liggéey bi. mais ci bis yii di ñëw ci samedi yii di ñëw. incha allahu rabbana dana ci jël bis boo xam ne si nii Touba gii lay ñëw comme ni mu demee Kaolack war ko demee yeneen régions yi. loolu lañ amoon pour jàllale ko comme message yu ministre bi. si beneen wàll Moustapha Seck rafetlu taxawaayu ndaw yi na waa COJER gën leen tamit encouragé. ñi ngi sant ñëpp di sant également COJER ci seen engagement ndax ñoom chaque samedi ñu def nii mais deuxième samedi bi aussi dana jëm ci benn marché wala ci benn hôpital pour maanaam nettoyer ko kon ñu ngi leen di lancer appel bu baax a baax te di leen remercier au nom de toute la jeunesse du département de Mbacké mais de la commune de Touba. au nom du ministre de l' de l'urbanisme et à mon personnel. ndaw li nag nii liggéey bu ni mel doon na lu am solo si cet gi environnement bi waaye tamit am jeexintal si gu yaram bi soññ na ñëpp ngir ñu mën seen soobu dans l' avenir ni ko président Macky Sall bëggee un Sénégal propre zéro yi